ñun ay taalibe Serigne Touba noonu bu wér nëbbawutuñu si làqatuwuñu si ñun sëñ Bamba moo seey suñu xol Serigne Touba rek nañu gëm kii sama rakk la nit bu la yégee respecté la jox la cër sagal la doy na sëkk ci àdduna amatoo leneen loo ko mën a fay rawatina nag yàlla boole ñu ñu bokk sëriñ Touba man ak moom dootul sax ay xarit famille nañu ndax Serigne Touba day jël njabootam yëpp boole leen ñu bokk nday bokk baay te loolu moo am gis nga àdduna boo fi nekkee amal foo féyte mu wóor ni am nga fi nga féyte ba ràññee la te man ku ma xam xam ne Serigne Touba la ma xamee kon lii am ni tey warul jaaxal kenn ci àdduna baabooy ànd naag Balla ñuy def safar ci bisu Sëñ Bamba doy na sëkk. ci kanam réew li bët xam lu ñuy ñaan yàlla na yàlla fal cat ñu ñu ànd ñun suñu njaboot ak lépp ndaxte booy ànd ak nit ngeen ànd ci sincérité ci dëggu. ah te yéenante jàmm gis nga kenn mënul nax doomu aadama yàlla kenn mënu koo nax gis nga lu ne ci xol kenn mënu ko nax yàlla sa bopp rek ngay nax nit boo yéene yéene li nga yéene sa bopp yéene ko sa morom barki Serigne Touba doo doo torox te ñun jàmbaar ju ne am muy xaadim rasul kenn du moom ba mu méttee la xuus jàll fu gën a tàng jàll ñëw taxaw kon bésam nit ñee nga wax. ana corona mun nañ wax ak yooyu ana moom bési sëñ Tuubaa nit ñi di nit ñi di wax ni dëkk bi dafa dëgër sëñ Bamba bésam du dëgër mukk ci àdduna billaahi wallahi bu dëgëree bu bés sëñ Tuubaa ñëwee léppay ubbeeku day yomb lool ci yow buy ñëw sa doo xam fu muy jógee koo koy xaadim rasul koo koy maamu sëñ Modou Habib Mbacké sama sëriñ koo koy waajur sëñ Abdoulahi borom dër bi xam lan moo am solo fu ñu toll ni ñu war a dellu siwaat mooy ñu yéenante jàmm maa ngi ñaanal sama góor gu mag gi maam Abdou Aziz yàlla na suñu borom yokk leeram xam ne dama ko bëgg sama xol lu mu doon wax rek tàppe leen xol yi yéenante leen jàmm boo xoolee mag ñi lan doon wax boo xoolee barke démb lu nit ñi def da gis léegi tijaan yi xoolal bu murit yi xewlee nun ciy def xoolal murit yi bu tijaan yi xewlee nun ciy def loolu mooy Sénégal laayeen ñaseen xaadir ñëpp benn noonu xam nga lan moo am solo yéenante leen jàmm ñu rafet seytaane yi génn ci tarixa yi bàyyi leen ndax limaamu laay xaadim rasul bàyyi ñu ñëpp ñoo bokk ñëpp jàmm nañu waaw. maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal yàlla safar gii ñu dugg yàlla nag sunu borom àggaleeg jàmm ak salaam ñu am si jàmm ak salaam ñaanal nag Omar yàlla na ko yàlla gën a yokk gën ko may ay xewal ak njabootam ak mbooloo mu jullit ak bépp taalibe Serigne Touba di ñaanal kalifa général kulli murit ak xalifa yëpp yàlla na leen sunu borom yokk seen leer di ñaanal nag sama sang ba sëñ Mouhamadou Amine Mbacké ki nga xam ne mu la yaakaar tey ëllëg